bëggoon xam say en tant que ñëw ci 8 mars bi parce que waa kontaan rek kontaan parce que lii moom tey mënu ma woon imaginer sax nii la fête bi di mel elles sont vraiment formidables magnifiques ah elles ont la joie de vivre te noonu ñu noonu la ñu xamee suñu woy yi dama woy ba jeexal ñu ne ma indil coupe bi wala ñu ulelee donc euh, nga xamante ne elles sont au diapason ñu ngi ñuy suivre ñu ngi ñuy xool te diñu bëgg. Euh, te ñu nit noonu lañ leen bëggee te suñu yaram noonu la dawee ci ñoom ndax caabi féete la ginnaaw dafa metti waaye xëy na ndogalu yàlla moom kenn mënu koo lu yàlla tudd ci nit moom kenn mënu ci mucc mais di leen ñaanal ñu gaaw génn fii ba ñu mën a insérer wuwaat ci société bi parce que ci la ñu bokk te ay femmes yu baax lañ man dama joué gis benn femme toog ma yëkkati ko kortu ko way ak moom lu ma yëg maa ko xam daal parce que tristesse laa doon liir ci kanamam mais après bi muy feccee elle était toute joyeuse kontaan yàlla rek moo xam waaye ñu ngi leen di ñaanal bu baax elles font partie des nôtres. waaw alors alors boo dugg see gis ñoo xam ne gis nañ sax ay prisonniers yoo xam ne dañ gàddu seen ay doom. Mhm. loolu mooy def ay xale yu ndaw yoo xam ne xamuñ dara di dund di dund ay ay jafe yoo xam ne si biir prison bi. daw yaram daw yaram lu may wax rek nattu moom wel loolu weesuwul nattu xale yi da leen di gis sa yaram dafay daw mais yàlla baax na parce que ñii ma gis nii ñi ngi de toujours espoir ñii ñu gëm yàlla lañ ndax boo leen gisee ñuy fecc kontaan da ngay xam ñii ñu gëm yàlla lañ. waaw donc metti na ci ñoom métti na ci ñun mais boo xoolee ñoom ñi ngi koy jéem a surmonter parce que ñu ngi ci ñu ngi kontaan di reetaan macha allah nañ la ñaana rek daal. tey ñoom ñi ci biir peut-être seen problème bi gën a mag mhm. ci mhm. lañ mhm. leen ñoom. ba bu ñu génnee. dootuñu am hésitation je pense que actuellement société bi war na dépasser yenn kii yi quoi préjugés yi ñu daan am ci ñoom parce que boo xoolee léegi prison jommul kenn ah mën na dal ku nekk benn erreur bu ndaw rek mën na la mën na la fi indi mën na la dal mun na dal ku nekk dañ ko mën na ma dal mais ñaanuñu ko yàlla mën na dal ku nekk mën na dal ku la jege mën na dal sa mbokk sa rak sa mag mais bon nañ leen ñaanal yàlla rek ñu jóge fi daal te insertion boobu ngeen di wax réinsertion sociale boobu ah man dinaa ci taxaw ndax jigéen laa te ay porte-voix lañu donc war nañ mën a jàppale leen ci loolu man dama bokk ci nit ñi mës a gëm ne ñu dugg fii par erreur lañu fi duggee nu mu mun ti demee rek erreur la te chaque fois man dama koy wax sax dans la dans la vie courante ah, nañuy moytu ay nañuy moytu saytaane dafa bari doole parfois mu mën la même ci biir kër yi sax nga gis mu mën la yow yaa sa digganteeg sa frère sa digganteeg say waajur kon ñii tamit mën na leen dal xamoo ku nekk lan moo ko fi indi mais nañ leen ñaanal rek mu ñu génn yàlla may leen jàmm jàmm rek moo mat a ñaan. Ah, yàlla na jàmm après après lii di immigration stade bi euh, kiwin def benn bës bu tolle bu am solo Sénégal yëpp naan kiwin kiwin kiwin am na yeneen ñoo xam ne tamit daaw na la après loolu noo gisee kàddu yooyu. ça va alhamdulilah critique ñàkk ci àdduna. mais dañuy ñaan yàlla affaire di amélioré di amélioré te ci yoon woowu lañu nekk gis nañ ne lépp mi ngi baax mi ngi positif